dal leen ak jàmm bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk waaye yenn saa yi ñu laalee loolu la Olof Njaay wax mbir moomee nag la koy firndeel moo di diggante Mbaye Dieye fay ak Youssou Ndour le roi di mbalax ñoom ñi nga xamante ni ba ñu dalee ànd ak léegi war na mat juróom fukki at Mbaye Dieye Faye di bras droit bu Youssou Ndour ci wàllum mbalax ca Super Étoile dellusiwaat na ci ab ñàkk déggoo bu amoon ci digganteem ak Youssou Ndour ca atum 2000 ak léegi war na toll ci ñaar fukki at xibaar bi nag góoru Mame Ndiaye gi mi ngi ko xamal waa réew mi quotidien ci ab interview boo xamante ni def na ko ak ñoom Mbaye Dièye fay mu ngi xamle ni moom ak Youssou jigéen Ndour bàyyi Birane Ndour mas nañu jàppante bu metti ba ñoom ñaar ku ne tey sa bopp jumeau wu Youssou nduur bi nag comme ñu ko sénégalais yu bëri di leen woowee nee na ginnaaw incident boobee ñoom ñaar bi ñu gisante waatee dañoo jooy jooyu metti mu nekkoon ab moment bu triste loolu ndax kat seytaane moo doxoon seen diggante waaye nag ci cadre liggéey bi ca lañ jotee woon moom Mbaye Dieye Faye mooy xamle loolu tëggkatu super étoile bii di xaritu Youssou Ndour mbay Dieye Faye mu ngi xamle ni depuis boobu ba léegi ñoom ñaar si jàmm rek lañ nekk naam sax yenn saa yi am ay information yuy senn di wax ni ñoom ñaar dañoo ñàkk déggoo waaye loolee dara du si dëgg ñoom ñaar ba ñu gëjee jàppante ak léegi mat nañ ñaar fukki at ñuy ñaan rek jàmm yàgg seen diggante ba ñu mën a continuer di liggéey ci jàmm ak salaam.